ginnaaw nuyoo bi ñu defal leen beneen vidéo boo xam ni bu am solo la ci ku sell ki nga xam ni mooy Seydina Ousmane Sonko gone yi di ko dàkkanteleeg ku tedd ki nga xam ni loole neexut a weddi ndax moom mii di gone gi daanaka def na loo xam ni fi mu toll nii ca bëggoon ak léegi wala ci suba ak léegi foo tourné daanaka Messi bal bi nga xam ni doon na ko jolal uh, ci milieu terrain bi nga xam ni moo romb këram digg milieu boobe boobee uh, jaxase na ko uh, ci gàttal gaa yi wër ko muy doxal ci bal bi lu am solo kaf ak ree moo ko ci dugaloon ak li nga xam ni mooy xol boo xam ni la cay belli di ca saxaar mbégte la góor gi ngeen gis mu nekk mag moo xam ni magum jëmm la waaye nag ki nga xam ni mooy Seydina mu sell mi ma nga koy toppandoo ci jëf joo xam ni jëf joojee daanaka maanaam fàtte li nga xam ni mooy ay bor ak fàtte li nga xam ni mooy jafe-jafe yoo xam ni daanaka mi ngi ci biir réew mi tax na ñuy génn di kalangaatu ci li nga xam ni mooy mbedd yi ngir fàtte li nga xam ni mooy seen i jafe-jafe loolee fi la réew mi toll réew moo xam ni métti na lool te it ñi nuy seetaan xam ngeen bu baax a baax li ñuy wax kenn formaté wu ko dëgg la goo xam ni euh, gu wër peng dëgg la goo xam ni gu nu mën a teg loxo moo tax daanaka yu bari nga koy gis ci réew mi jafe-jafe yi nga xam ni nit ñaa ngi koy dund. ba tawee euh, phénomène bi nga xam ni Messi andi ko tey ngeen xool gone yi kenn kum ci man di doon koo gis. ma nga yor bal boo xam ni daanaka euh, bula lan ca def ak a bula lan ca def ak weex ak li nga xam ne mooy xong ngir sargal ki nga xam ni tey jii lépp lu mu laal moo gën lu mu laalul ci mille réew mu am solo bu baax a baax information yi kon ñu jubbanti tuuti Sonko mi nga xam ni danañ ko woowaat le 16 bii nga xam ni moom la ñu mën loole tamit di loo xam ni lu ñu mën a duut baaraam la ci yeneen vidéo yoo xam ni danañ ci indi ci ay leeral yoo xam ni dara du ko rax lu dëgg koo xam ni moom la ñuy bell ci Aladji Malick TV.